أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ñu jël tey ñeenti aaya aaya 73 74 75 76 ñeenti aaya yu ñuy jàng juróomi mbir bi ci njëkk mooy ibtaalu taslis fi aqidati nasara wa taqriri tawxid aaya bi ñuy jàng liñ ciy jëlee mooy yàlla subhanahu wa taala mu ngi dajji mi ngi dàq mi ngi neenal loolu ñuy woowee ñetti yàlla ak tasliis nga xam ne pas-pas la boo xam ne nasaraan yi dañ koo gëm yàlla bi mu dàqee loolu ba pare lan la def dafa saxal tawxiid xam ngeen ne tawxiid moo indi xëccoo diggante nit ñi ak seeni yonent ndax nit ñi dañoo lànk ne foog nu bokkaale yonent yi lànk ne bokkaale du fi am yàlla kenn du ko bokkaale moo tax aaya yi nuy jàng dafa ñëw di dàq utal yàlla ndend ñaar ak ñett ak lu kenn xamut kon ñi gëm ne yàlla ñett la yàlla dafa dégager seeni xalaat daf ko dàq yàlla moom kenn la ca pàcculi xul huwa llahu ahad yàlla kenn la yàlla du ñaar du ñett amul dendandoo mattaxasa saahiba wala walat musta am dendandoo soxna wala nii doom yàlla jomb na loolu dinañ gis ci kanam ñii wax ne Isa yàlla la yaayam yàlla la yan mbir la leen yàlla tegal pour ñu xalaat ci ba xam ne ñii ñuy tooñ ñii ñuy askanere yàlla du nu yàlla loolu nag buñ ko déggee lim nuy jural mooy ñiy wotewu yàlla tey ci ci dëkk bi la ci àddina bi dem sax ba utal ko tariixa utal ko yoon tuddee ko ay yàlla yàlla nga gis nit koo xam ne moom dañ koy gis ñu nekk ci ban tarixa la bokk nga gis nit ñi ne yàlla yàlla wala sax ñu dem ba ñenn ñoo xamante ne dañoo jël baatu yàlla daal di koy utal seen bopp sant suñ leen di nuyu di leen wax seeni sant kenn dootu leen wax benn sant la dañ leen di wax yàlla yàlla maanaam laay laay loolu yépp pas pas bu wéré di la pas pas bu wérul la dëgguwul saxul fenn yàlla daa bokkul ak kenn ba ñuy jël santam yàlla daa bokkul ak kenn ba mu lay jur képp ku ngeen fi déggoon mu naan mooy muy wax mooy yàlla tiim ngeen ci bàmmeelam wala gis ngeen ay nit yu tiim ci bàmmeelam wala jamono ngi ñëw dinañ tiim ci bàmmeelam kon du yàlla moo tax pas-pas boobu la aaye yi njëkk a dégagé yàlla du ñett ñaareel mooy ibra isa wa walidati alayhim assalaam min daawa al uluhiya linnas al uluhiyati linnas bokk na ci li ñuy jàng ci aaye yi mooy yàlla setal gi mu setal isa ak way juróom gu jigéen muy maryam yàlla da leen a setal ba ñu set wicc ci woo gi leen nit ñi di woo di leen askanale yàlla mooy kon dañ leen a tooñ léeg-léeg li ëpp ci wootekat yi wala nit ñi wala borom xam-xam yi wala sëriñ si wala wala nit ñee leen di tooñ parce que nit ñi ñoo leen topp di leen jay di leen jay di leen jay di leen jay ba yégal leen dara daraja wala garaat bu ñu takk wala fu ñu mun ta yegg même ñi ngeen di gis fii ñu naan leen ay yàlla ngeen wala ñu leen di wax nangam ngeen ay walu yi ngeen ak ay xutbu zamaana ngeen ak ay xawsu ngeen léeg-léeg duñ ko wax seen bopp mais taalibe yi wala nit ñu réer ñi wala nit ñi nga xam ne amuñu benn capacité ci xel ñoo leen di jege di leen wax yenn yi di leen wax yenn yi di leen wax yenn yi ba ñeneen ñi mujjee ñëw daal di saxal loolu waaw diw du diw du moroomu nit ñi kii kii fi mu nekk àdduna bi moo raw ñëpp du moroomu kenn léeg-léeg nga dégg ñu wax ko nit kii du moroomu kenn kon moo raw ñëpp moo raw Seydina Muhammad moo raw Aboubacar moo raw Ousmane moo raw Umar moo raw Ali moo raw sahabatul kiram loolu nu mun nekkee nit ci islam tey fii nu toll kenn mënta takk daraja ba raw sahabatul kiram wala taabiin yi mënul nekk waaw kon yàlla dafa satal isa ak way juram ci woote gi leen nit ñi di woo di leen def yàlla yàlla setaleen bañ set yàlla xamal nit ñi ne ñoom duñu ay yàlla musuñu wax seen bopp yàlla yàlla joxe na ci setal gi mu leen setal yàlla joxe na ci preuve ñetteel mooy fataha baabu tawba yàlla ubbi na buntu tuub fi wajhi nasara law annahum yatuubun yàlla ubbil na nasaraan yi buntu tuub pour ñu tuub ci li ñuy wax daan yàlla ñett la di ko def ci seen jéy ak seen mbagg yi yàlla ubbi leen buntu tuub ñu tuub wax jooju pour ñu deltu bañ a rëy waaw lii moo lay won ne yàlla ku baax la yàlla borom yërmande la yàlla ku bëgg jaamam yi la nit tol wax wax ju garaaw ju tol nii utal yàlla ndend ah dem ba tuumaal yàlla utal ko soxna utal ko doom terewul yàlla ubbi la bunt ne la ñëwal tuub wax ji ngay wax li muy rëy rëy rëy soo ma jéggaloo ma jéggal la ko bàkkaar bi nga def li muy rëy rëy rëy rëy rëy soo ma jéggaloo man sa borom ma daal la koy jéggal kon yàlla ubbil na nasaraan yi buntu tuub waaye du nasaraan yi kese même ñun nii jullit yàlla ubbil na nu buntu tuub ci lépp lu nu def lépp lu nu tarxiis buñ ko jéggaloo mu déggal nu ñeenteel mooy taqrir bashariyatu isa wa maryam alayhim assalaam yàlla dafa saxal ci aaya yi nekkug nit bu isa ak yaayam nekk nit kon isa ak yaayam du ñu ay malaak du ñu ay jinne du ñu ay yàlla ay nit lañ yàlla moo saxal ne ñoom ñaar ay nit lal bi dalil ixtiyaajihima ila taam ne yàlla ne xool leen ñaar ñi dañoo soxla lekk dañoo soxla naan ku soxla lekk ak naan nag li muy tekki mooy mbindeef nga parce que yàlla moom du lekk yàlla soxlawul lekk soxlawul naan kon képp koo xam ne dangaa soxla lekk ak naan mooy li muy tekki mooy mbindeef nga doo yàlla waaw kon su fekkente ne ñoom dañoo soxla lekk ak naan kon mënuloo nekk yàlla la tasixu al uluhiyatu aqlan wa shar'an xel munta nangu koo xam ne day feebar dafa juddu day lekk day naan dafa tële ah day am ay jafe-jafe ñu ne kii moom day nekk yàlla munta nekk xel nanguwu ko sharia nanguwul loolu kon yàlla subhanahu wa taala mbokk yi saxal na ne isa nit la yaayam nit la juróomeel mooy zamm kullu man yaabudu xayra allah yàlla ŋàññ na xas na képp kuy jaamu ku dul yàlla yàlla xas na la yàlla ŋàññ na la is kullu xalaa'iq muftaqiratun la tamliku li nafsiha wala li aabidiha darran wala nafan wala tasma'u du'a man yad'uha wala ta'lamu an haalihi shay wallahu wahdahu sami li aqwali kulli ibadi al alim bi sairi ahwalihim wa amalihim fa huwa al ma'budu bi haqq wa ma adahu batil sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ŋàññ na xas na képp kuy jaamu keneen ku dul moom yàlla xamal na la ki ngay jaamu ku ñàkk la ki ngay jaamu mënul dara mënul tus yow mi koy jaamu ak moom mi ngay jaamu yéen ñaar ñépp ñu lottu ngeen ki ngay jaamu mënulaa jëriñ mënulaa lor wallahi bu deewee ba ñu dugal ko ci bàmmeel boo ko woowee du ko dégg soo ko tàllalee ay loxo du la defal tus mënulaa may mënulaa jëriñ bi nga gén bi mu génnee àdduna xamatul ci yow loo nekk yow xamatoo moom ci lan la nekk yàlla dong subhanahu wa taala mooy aji dégg mooy aji wuyu wootekat yàllaay dégg waxi jaam ñi ak seeni ñaan mbooleem jaam ñi nag fu ñu mën a nekk nu ñu mën a toll làkk bu ñu mën a wax xeet bu ñu mën a bokk yàlla subhanahu wa taala moom dong mooy kenn ki dégg seeni kàddu mooy ki xam seeni mbir mooy ki xam seeni jëf moom kenn kot jalla jalaaluhu borom boobu mooy ki ñu war a jaamu keneen ku dul moom neen la te bisa ngi ñëw nga xam ne neen la bisa ngi ñëw léegi du yàgg nga xam ne kii nga doon topp du tus kii nga doon def yàlla kii nga doon yëkkati kii nga doon jox daraja di ko kaweel ba jegeel ko yàlla léegi léegi léegi léegi léegi léegi ay waxtu yu néew nga xam ne du woon tus jalla jalaaluhu moom dong mooy mbir mi wa ma adaahu fa huwa baatil ku dul moom rek neen nga caaxaan nga kon mbokki julli di juróomi mbir yi ci tënk bu gaaw mooy li ñuy tënk jële ko ci sunu aaya yi nga xam ne mooy ñeenti aaya yu nekk sunu kanam noo ngi ñaan sunu borom almawla jalla jalaaluhu mu kàttanal nu dëgëral sunu làmmiñ ba dunu tarxis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم sunu borom ne laqat ca dëgg-dëgg mu ne ay dañul ma zala siyaqul aya fi bayaani kufru nasara aya dañul mbokk jullit yi di leeral di weddi nekku yéeféer nasaraan yi aya yi dañul mbokk jullit yi di weddi nekku yéeféer nasaraan yi yàlla mu xamal ñu ne nasaraan yi ay yéeféer lañ kon ay yu mel nii mbokki jullit yi danañu jàppale danu ñi nga xam ne léeg-léeg ñuy am ay sikki sàkk ak ay déngi déngi ak ay ak ak ak ak léeg-léeg nga dégg ku ne est-ce que mën naa takk ab nasaraan walla waaw ay buñ la waxee ne nasaraan yi ay yéeféer lañ léegi lu fi tagate ay ba ñëw dañuy ñëw di weddi ne nasaraan yi ay yéeféer lañ kon ku leen jàpp di leen compter ci ahlul kitab yaa ngi ci erreur bu rëy yàlla ne laqad ca dëgg-dëgg kafara weddina wala loolu du islaam wala lii du lii lii du baat bu leer kafara la yàlla wax weddina ay yéeféer la ñan mu ne allazina ñi nga xam ne qaalu dañoo wax ne inna allaha naka yàlla thalithu salaasin satin mooy ñetteelu ñett ñi ñan ñooy instant bi ñu toll ñan ñoo ñan ñoo yor pas-pas bi kon ay yéeféer lañ li texte bu leer la moo tax waruñu sëgg texte yi lu ñu bëgg jàmm lu ñu bëgg bëgg bëgg bëgg yàlla moo ne ñii ay yéeféer lañ te ñooñu yàlla wax ay yéeféer lañ ñun guddee bëccëg ñu ngi teg suñu bët li yàlla wax ne ñii lii moo tax ñu nekk yéeféer ñu ngi koy def sax suñuy kanam ni day dugg oto def ko sa kanam ah day lekk def ko ci lekk bi day naan di ko def day dugg ci kër di ko def bala muy wax def ko wala nga ciy teg sa bët ku mel noonu yàlla ne la yéeféer la suba nga ñëw nga ni da ngay takk da ngay da ngay da ngay jëflante ak moom yàlla ne la kii yéeféer la salisu salasa hiya al ab mooy baay ji wal ibn wa ruhul quds ak ruubu sàll bi moom la ñuy wax saint esprit mu ne wa kulluha ilahum wahid ñoom ñett yooyu ñu bëgg a tas kenn kese la mooy yàlla jalla jalaaluhu amul benn amul ñaar amul ñett kenn dong la moo tax yàlla ne ñii gëm lii ay yéeféer lañ waaw mu ngoog ñenn ñi ci ñoom dañ naan al abd wal ibn wal ummu ñeneen ñi dañ naan duñu wax saint esprit waaye dañ naan papa ji doom ji yaay ji ñëpp ñaar ñëpp yàlla nee na ñi ñëpp ay yéeféer lañ te ay fen lañ def yàlla moom wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa ma min ilah amul benn yàlla bu fi ne bu ñuy jaamu jaamu gu ñuy jëriñ ñàkkoo jaamu nekk lor illa kudul ilahun wahid benn yàlla boobu amul keneen wa ma min ilahin amul benn yàlla amul kenn ku nu war a topp mu nekk suñu borom illaa lu dul ilahun wahid benn yàlla waaw walaysa al amru kama yukazibun mbir mi nekkul ñoom nañ koy waxee innama allahu ilahun wahid yàlla kenn la amma jibril fa ahadul malaika jibril malaika la du doomu yàlla wa isa abduhu wa rasulu isa jaamam la yonentam la wa maryam ammatu maryam jéebéeram la fal kullu ibad ñëpp ay jaam lañ yàlla loolu la wax ci alquran in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahman abda kaw asamaan ak suuf biir géej ak biti li feeñ ak li nëbb ku ñu xam ak ku ñu xamul ñëpp ay jaam lañ ci kanamu yàlla ëllëg jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom yàlla jomb naa am doom jomb na am soxna yéen ñi ami soxna am doom xam ngeen ne nit bu amee soxna manqué na waaw jëfi ku manqué ngay def yaag sox sa soxna bu ngeen di am doom ni ngeen def ba am doom xam ngeen ne ku mat du ko def waaw waaw loolu tax gis nga même suñu kilifa yi ndeysaan léeg-léeg bu ñuy takk soxna dañuy nëbbatu bu ñu amee doom duñ duñ tudd dañuy def taf taf rek waaw kilifa gi am na doom fan yi la passé dañ ko tudd rek tudd biir néeg ah buñ ne sa kilifa am na doom looy xalaat ah ndeke kii kilifa gi ah ah ndeke li may def lay def ah ndeke man li may dal li may sa ah gis nga manqué ngoog loolu loolu nag sunu borom jomb na ko jalla jalaaluhu waaw ndax loolu mbiri ku manqué la moo tax ba ñu waxee wax ju garaaw ji ne yàlla ñett la yàlla xamal leen ne moom dong moo fi ne kenn nekk fi ku dul moom xoolal ndeysaan mu ne wa in lam yantahu suñu daytaluwul arrêté wuñu bàyyiwuñu lii amma yaquuna li ñuy wax la yamassanna giñ naa ci sama màggaay laam bi laamul xasam la nun bi nunu tawkiit la giñ na yamassanna dana dal dana laal allazina gaa ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi ba pare di wax wax ju mel nii minhum ci ñoom azabun alim mbugal mu méttee métti képp ku bàyyiwul di askane ne yàlla jobat di askane ne yàlla doom wala ngay askane la beneen bindeef yàlla wala nga yëkkati ko daraja ba indi ko ci yàlla képp ku bàyyiwul loolu fa in lam yantahu amma yaquluun bu ñu daytaluwuñ arrêté wuñu seen théâtre yi ñuy def ala nee na buñ ci arrêté wut sama mbugal dana leen dal la yamassanna dana dal ci kaw gaa yi nga xam ne allazina ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi ba weddi googu jural leen ñuy wax wax ju mel nii minhum ci ñoom azabun alim mbugal mu méttee méttee métti métti yàlla mbokk yi yemul ci loolu xool dafa giñ fa aqsama taala annahum in lam yantahu am an qawli albatil suñu arrêté wul ci seen wax yu neen yi waxu caaxaan yi wa huwa kufrun wax ñi nga xam ne kéeféer la ku ko wax rek yéeféer nga mbokk yi isa ak sunu kilifa yi kan moo ëpp daraja yaayu isa ak sunu kilifa yi ko ëpp daraja yaayu yaayu isa moo leen ëpp daraja mariam ñaar ñi bu fekkee seen daraja ak seen màggaay la leen ay nit wax ne ay yàlla ngeen yàlla ne ñi wax ñooñu yàlla lañ ay yéeféer lañ kon ñeneen nag ñi ñëw ginnaaw ñooñu nga xam ne egguñu sax ci isaa wee yàlla mu ne ñi wax isaa ak yaayam ay yàlla lañ yéeféer lañ kon ku ñëw septième siècle bi fekk fi kuy lekk dëxin ak maax fekk mbaxal ak suppu kànja ah xamul dara ci diine nga ko nga ne yàlla la kon yow lan nga lan nga def kon yow fan la lay tegal kon yow fan la lay classé fan la lay askane xoolal isa ak daraja ji mu am dafa juddu amul bàyyi loolu rek grade la yàlla tuddee ko almasih ah mu bokk ci ulul azmi min ar-rusul bal rafa'ahu llahu ilayhi yàlla moo ko yëkkati yóbbu ko kaw asmaan xoolal daraja yu rëy yi terewul ay nit ne yàlla la yàlla ne ñi ne yàlla la yéeféer lañ kon keneen ku dul isa nag kon ay aaya yi dafa ñëw pour ñu dellu suñu xel pour ñu xalaat ñu bañ a dal dugg ci ay musiba yoo xam ne dafa yàq suñu àdduna yàq suñu àllaaxira borom bi nee na ñii di wax lii suñu arrêté wul giñ naa man sama man sama seen borom fa aqsama taala annahum yàlla giñ ne bu ñu arrêté wul ci wax caaxaan yi ñuy wax ay yéeféer la ñuy doon te bu ñu nekkee yéeféer dana leen dal mbugal mu rëy moo xam ne ci yàlla subhanahu wa taala lay bàyyeekoo sunu borom jël deuxième aaya bi ndeysaan xoolal terme yi yàlla waxee aaya bi di ñëw sunu kanam mu ne afalaa yatuubuun waa ñii di wax def lii ñii di wax lii moo ñii lu leen tere tuub allahu akbar aka daw yaram léeg-léeg sa doom jàdd nga woo ko naan ko mon fils mais yow tamit ah doom ah ah wallaay waa lii noo ko mën a waxee yow tamit lii noo ko mën a defee waaye yow tamit xalaat yi ah xool xoolal borom bi munoon na leen wax rek tuub leen la tuubu munoon na wax itit mais mu ne afala yatuubuun waa ñii xanaa mënuñoo tuub allahu akbar yàlla baax yàlla bëri yërmande yàlla mën a jéggaleen xool yemu ci de afala yatuubuuna ila allah wa yastaghfirunahu waaw ñii tee ñoo tuub dellu ci yàlla jéggulu ko li ñu wax jaw yi ba tey de mu ne suñ ko defee dinañ fekk wallahu ghafurur rahim ndeysaan gis nga doomu aadama warul découragé bàkkaar boo def lu muy rëy rëy rek tuubal ak lu mu rëy rëy nag tuubal balaa buntu tuub di tëj waaw balaa ngay egg ci sukuraat même say bàkkaar bu toggoon bu tolloon ne vague géej soo tuubee yàlla baal la bàkkaar bi lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy soo tuubee balaa ngay dee yàlla baal la ndeysaan afala yatuubuna ila allah waa ñii lu leen teree tuub dellu ci seen boroom daal di koy jéggulu wa yastaghfiruuna ñu jéggulu ko wax astaghfirullah wallahu ghafuru rahim kon danañ fekk yàlla muy jéggalaakoon danañ fekk yàlla muy yërëmaakoon yàlla ñëwaat nag di leen orienté di leen teg ci raay bi ndax li ñu wax dafa rëy su fekkee dafa leerul ci ñoom wala dañoo am ay jafe-jafe ba ñu bëgg a jàdd wala dañoo jommi ci ñi Isaa juddu yàlla di leen tegaat ci raay pour ñu bañ a tarxiis mu ne leen mal masih ibnu Maryam Messi al masih raay mu wér doomu Maryam nekkul illaa lu dul rasuulu ndaw yonent bu yàlla tànn waaw bu ñu jommi ci ni mu juddoo ak jëf yam doon jëf yépp ci yàlla la bàyyeekoo yàlla moo ko wërsëgal yàlla nee na mal masih isa nekkul messi ah ibnu maryam doomu maryam illaa lu dul rasulun ndaw lu nu yónni xad xalat weesu na jàll na ginnaawam min qablihi ci lu ko jiitu woon ar rusulu ay yonent moom mi ni ko yàlla tànnee yónni ko noonu la yàlla tànnee ay yonent yoo xam ne ñoo ko fi jiitu woon démb balaa moom mii di ñëw tey ni mu nekkee yonent am na ñu ko jiitu woon moom dafa ñëw di mottali mission bi wa ummuhu ak yaayam siddiqa ku dëggu la woon ku dëggu la moom yaayam daawul caaxaan daawul fo daawul uti far daawul ay nekkaale daawul sollu gàtt daawul xeesal daawul mees daawul daawul daawul yaayam wa ummuhu siddiqa ku dëggu la woon ci ay jëfam ak i waxam waaw waaw musul xam caaxaan musul fo waaw gis nga kon yaayam royukaay la yàlla yamu ci loon de mu ne kaana ñoom ñaar nekkoon nañ yakulaani taam ñuy lekk ñam kaana ah lu tax yàlla mu ne kaana ah anañu jàng arab musanna la kaana ñoom ñaar ñi nekkoon nañ yakulaani dañ daan lekk attaama ñam allahu akbar mbokk yi gaa yi nag ñoom ay yàlla lañ kuy lekk bu ñu la tabaxalee appartement bu ñu la jëndalee terrain tabaxal la kër ay néeg kese lañ lay tabaxal ay saal kese ah lan lan lañ lay tabaxal ci biir kër gi néeg ak lan ak saal ah dina am douche allahu akbar kaana yaakulaani taam kii dugg duus lu tax muy dugg duus dafa lekk billaay reeral ceer ak baase ba suur nga tëdd 24 heures du baax ci yow lu dul nga dugg duus yàlla la foofu la bu loolu la bëgg a wax yàlla daf la bëgg ne kuy lekk di naan mënoo nekk yàlla ndax lekk ak naan dafa am lu mu aajowoo moo tax aadama bi ko yàlla bindee tëral ko aljanna mu tëdd mu nekk 60 mètres guddaay 7 mètres yaatuwaay iblis dafa ñëw di yéeg ci kawam mel ne garab gu ñu dagg xam ngeen garab gu ñu ko daggee ci koñ bi mu tëdd xale yi nu ñuy def dañuy yéeg ci kawam di ci fo iblis noonu la di yéeg ci kaw aadama di daw di ñëwaat di dugg ci biir gémmiñ gi di dugg ci biir bi génn ci ginnaaw gi di digg ci biir bi iblis mu ne kii ku yambare la ñu ne da nga wax loolu mu ne dafa am biir ku am biir rek da nga yambare ndax sa biir moo lay sonal lan moo sonal nit ñi tey ah yaa ngi liggéey lu sax ngay liggéey biir koo gis muy tër tër rek lan la biir ke ngeen liggéeyul ngir bët kee liggéeyul ngir bakkan kee liggéeyul ngir gémmiñ kee liggéeyul ngir loxo waaye yow ngay liggéey nga ne sama tànk yi ñoo tax may liggéey loo def ci biir rek gis nga moo tax biir moo sonal nit ñi moo tax ku am biir mënut a nekk yàlla ku am biir munul nekk yàlla kuy lekk munul nekk yàlla kuy naan munul nekk yàlla waaw ñaa ay melokaan la yoo xam ne yàlla moo koy indi pour nit ñi xalaat xam ne ñi ñuy wax ne ay yàlla lañ ñi leen koy wax dañoo juum wala ñoom ñi ko wootewu tamit juum nañu waaw kaanaa ñoom ñaar nekkoon nañ yaakulaani dañ daan lekk ab taama ñam wala borom bi bi mu waxee lii ba pare mu ne unzur xool leen xool leen regarde bien xoola bu baax kayfa nubayyinu lahumul ayat naka lay faram fànce aaya yi ah sunu borom du nit allahu akbar unzur waaye xoolal waay xalaatal réfléchilal bu baax kayfa naka nu bayyinu lahumul ayat laa leen di leeral aaya yi wala ma laan leen rek nangam nangam non dama laan leen leen bu doon yàlla lañ kay du ñu lekk du naan après boo lekk ak naan après lekk ak naan fu muy reesee ah ah mbokk yi allahu akbar allahu akbar ndeysaan unzur waaye xoolal bu baax waaye ubbil sa xel bi say nopp déglul kayfa xalaatal naka nu bayyinu laay leerale lahum ñeel leen al ayat aaya yi summa topp unzur xoolal annaa yufakun nu ñuy wane ginnaaw ndeysaan bañ a bañ a réfléchir bañ a xalaat xool li ma leen indil orientation yëpp nit ñi bloqué seen xel yi bañ a xalaat ci lii ma leen wax unzur xoolal anna yufakuun naka la ñuy tourner naka la ñuy soppeekoo ah kayfa yusrafuuna anil anil xaq naka la ñuy dummooyoo dëgg waqad zahara waadihan feeñ na nañ leer na la keng mi ngi nii ne jant mi di ne keng xam ne yàlla du lekk du naan kuy lekk di naan léegi nga dugg sëri kili kilifa goo gis kilifa goo fi gis rek defal nañ la salle de bain salle de bain bi pour fooy tëdd la di nelaw loo koy dee pourquoi ñu toll salle de bain yow kenn nga fay dugg lu tax parce que xam nañ ne doo yàlla doo yàlla mbindeef nga kon lii dal mbindeef yi daf lay dal waaw waaw da ngay feebar da ngay soxla sa bopp da ngay dem toilette waaw da ngay nelaw mais gis nga gars yi buñ naree buñ fi ñu nar a alagee mooy kilifa yi du ñu jullindoo sax ak ñun du ñu jullindoo sax ak nit ñi du ñu lekkandoog nit ñi tey boo fi demoon benn kër kilifa ngeen toog ba lekk jot dañ leen di indil yéen gan yi lekk bi kilifa bi du lekk ak yéen te Seydina Muhammad da doon lekkandoog nit ñi waaw parce que xam nga tax boo lekkandoog nit ñi léegi sa manqué manqué feeñ léegi nga waa sëñ bi moom dankam yi ngand na de seet ndigi kii nii la bëggee laax muy lekk mustaas yi di takk léeg-léeg mu ne furux furux affaire bi ah manqué manqué commencé nga ne nga commencé sa xel naan kii kii nit la comme man kii day xiifan gis nga moo tax duñ lekkandoog nit ñi dañ leen di nëbb ndax seeni manqué manqué du feeñ bu ñu toogee ñu ne leen bu leen xool fu bëri bañ na ko sax ba leen di takkaloo yenn saa yi ay verres yu ñuul pour nit ñi duñ gis seen kanam yi yooyu yëpp ay ay xeetu manqué manqué yu ñuy nëbb la rek bëgg ne waa ji dafa mat matul dara ni nit ñi mel la mel waaw ñoom ñëpp a yem am na daraja nag yu leen yàlla may waaye daraja yooyu mënuñu waruñu koo làqatoo ba egg ci palaasu yàlla nag mukk tilka rusul faddalna baaduhum ala baad même yonent yi sax dañoo ëppante ay daraja mais egguñu ci yàlla nag egguñu ci yàlla erreur bi yëpp mooy yëkkati kilifa di ko yóbbu ci yàlla loolu musiba weesuwu ko ku nekk am nga daraja bu la yàlla may ku nekk am nga martaba bu la yàlla yëkkati waaye nag am na fu mu yem anzilu nnaasa manazilahum wàcce leen nit ñi fu ñu leen fu ñu yem seen daraja bu leen yàlla may kenn warta yëkkati nit ba weesal ko sayduna muhammad kenn warta yëkkati nit ba rombuloo ko yàlla te tey lii loolu moo am daanaka muhammad moom romb nañ ko bu yàgg parce que bi nga ne diw amul morom rek mooy romb na Muhammad ki amul morom kenn dong lañ ko war a wax mooy Seydina Muhammad ki lañ war a wax amul morom jeex na mais ku dul moom nag ndeysaan maa ngi seetaan benn vidéo ci YouTube bi benn waay di wax ne seen waa ji sax de suñu waajee ko raw Muhammad bi ñuy wax sax suñu waajee ko raw am xam nga ne loolu kuf loolu kufru la naka la nit di waxee sunu waa ji moo raw Muhammad te seen waa ji waxul loolu de moom ci ay mbind makki waxam waxul ne maa raw Muhammad mais moo tax ku déglu ñi ci mbedd yi rek da ngay def erreur bis bu nekk bu ñu lay wax ne diwoo wax sàngam xoolal diw moom lan la bind lan la wax waaw jeex na nga noppalu waaw bul werante kilifa gi moom moo def nangam moo wax nangam delluwaatal rek ca la mu wax ak la mu bind nga àtte waaja ah moom de waxul loolu yow mi yaa wax loolu waaye moom waxu ko ah moom moom lii la wax jeex na nga féex mbokk yi sunu borom nee qul maa ngi leen di wax waxal yow muhammad ataabuduuna ndax dañuy jaamu min dunillahi leneen lu dul yàlla ma laa yamliku lakum darran loo xam ne wallahi mun leen lor wala nafaan mun leen jëriñ ngeen koy jaamu question la laaj leen ñoom ñii ataabuduuna ndax dañuy jaamu min dunillahi leneen lu dul yàlla wali si yàlla ma laa yamliku lakum loo xam ne amalu leen darran lor wala nafaan mun leen jëriñ lan moo dal nit ñi ba ñuy jaamu loo xam ne mun leen jëriñ mun leen lor dara la leen mënalul tus tus waaw waaw mu ngoog bis bu nekk Sénégal nekk ci inondation bis bu nekk ñoo am ay gouvernement yu am problème bu ñu génnee ci li dugg ci li dugg ci ay tolof tolof ana yàlla yi ñuy jaam bu ñu régler problème li Omar doon wax dama dama doon tukki defar sama yàlla ma dem ba ci àll bi ma xiif mu génne yàlla bi ay yàlla xiif naa de alma ta alma benn tànk bi tàndarma la ko defaree mu ne ma damm benn tànk bi lekk yàlla bu ñuy àbb di tànk ak loxo mu ne ma dama demaat ba ci yàgg ma xiifaat ma génnewaat ko ma ne ko ay yàlla xiifaat naa de xaaral ma àbbaat beneen tànk bi ba ñibbi mu ne ma dammaat beneen tànk bi noonu la toppee yàlla bi bu lekk ko ba yàgg la yàlla bi jeex tàkk loolu xam nga ne xam nga ne loolu yàlla yàlla ji ñuy àbb ay tànk ak i loxo ak bopp di damm di lekk ndeysaan ndeysaan am na ci kenn saaba yi koo xam ne moom yàlla bi la gis till bi ñëw ci moom saw saw ko till bi ñëw ba ci yàlla bi daal di koy xeeñ daal di koy saw mu ne yàlla boo xam ne ay till ñoo koy saw yàlla boo xam ne till yi ñooy saw ci bopp bi lii day jar naa xalaat voilà Ibrahima loolu la defoon fekk yàlla yi nekk di ko jaaral mu daaneel yàlla yëpp wékk yàlla ji benn benn benn jaasi ji bi gaa yi ñoo ne man faala haza bi alihatina ku def nii sunu yàlla yi mu ne ah bu leen ko laajte ngeen fekk yàlla yu ndaw yëpp daanu yàlla bu ngand bi taxaw wékku jaasi ji mais laaj leen ko ku def nii ñu ne ko yow xam nga ne lii du wax lii du buuse du wax ba pare nga naan nañ ko laaj mu ne leen yéen da ngeen a dof lii nga xam ne du buuse du yëngatu suñ koy lor mënul défendre boppam yéen ñi koy jaamu ay dof ngeen dëgg la mais loolu yëpp li tax mu def ko dafa bëggoon nit ñi xalaat mais nit ñi duñu xalaat nit ñi dañuy bloqué seen xel yi nit ñi duñu xalaat xel su la ko yàlla mayee da nga war di xalaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ci li la yàlla may benn waaye nee na man li ma génne ci caaxaan yi mu ne benn sëriñ dafa woolu mbay dafa woote nañu bay mu ne ñu xëy di bay ay hectare suba ba ngoon ngoon jot mu taal kaat kaatam daal di yegsi ñu ne ñëw na sëñ bi ñëw na ñëpp ñëw toog egg suuf moom dong mu toog ci kaw mu ne yéen ñi fi yendu ñëpp assuré naa leen aljanna yéen ñi yendu ci mbay mi yéen ñëpp yéen a ngi aljanna waa ji nee na ma xool mbooloo bi gisuma fi doomu sëriñ bi te soxla na aljanna gisuma fi jabaram te soxla na aljanna gisuma fi ay jarbaatam te soxla nañ aljanna gisuma fi benn mbokkam te soxla nañ aljanna ñeneen dong laa fi gis ay taalibe gi ay xuusmaa njàpp ma ne affaire bi ay naxaate la bu doon aljanna la ñoo ñoo ciy jiitu ndax aljanna ñëpp ko soxla mu ne looloo ma ci génnee on a dëgg ñu dee xalaat say aljanna lu toll ne aljanna ñu ne ku xëy fii dem aljanna ku war a jiitu yonente ba ñuy tabax jàkka ji mu xam ne ku ci xëy dugg aljanna moo jiitu saaba yi ne ko dama nga toog mu ne xanaa da ngeen alku xanaa xamu leen sayyidul qawmi xaadimuhum ah moo jiitu ci yëkkati birig yeeg indi di teg gars yi di tabax parce que xam na ne fii ku fi xëy dugg aljanna biñ diglee jihaad kan moo jiitu sallallahu alayhi wa sallam gars yi topp ko parce que xam na ne lii aljanna la waaye mës nga gis aljanna joo xam ne buñ ko wootee doo fa gis kilifa gi te moom moo bëgg aljanna doo fa gis doomam doo fa gis mbokkam doo fa gis kenn gaa yi mbir yi nañ leen xalaat xel nit day xalaat da ngeen di jaamu loo xam ne amalu leen njëriñ amalu leen lor xanaa yëgu leen ne wallahu yàlla huwa moom assamiu mooy aji dégg ji al alimu mooy aji xam ji chaque jour lu ñu dañ di fàttali bu ñu jàngee alquran tafsir aaya yi ba yegg ci aaya bu mujj ñu ne said hawa rahimahullah dafa wax dénkaane ne nit bu jàngee alquran ba aaya yi jeex na bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee sunu borom nee na moom yàlla assamii mooy aji dégg ci alalim mooy aji xam ci soo jàngee aaya yàlla ne la maay aji dégg kon jàppal ne lépp looy waxati yàlla nga koy dégg alalim jàppal ne yàllaay aji xam amul dara sa mbir lu nëbbu ci moom kon lépp looy defati na leer kon fii la ñuy li mooy sunu darsi tey ñu ngi jéggli njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu fekkee am na ay laaj